Gaston Production présente mbokki Sénégal mbokki amateurs yi déglu la grande finale du CLAF 2024 bi Gaston production organisé wu moo war a dox nag ci diggante Doudou Sané ak Caatu Yaraax ñaar ñu am mérite ñaar ñu jàmbaare waaye Gaston production bi yam foofu mbokk yi la phénomène de Pikine Prince moom la jël daal di koy boole ak doomu Fatick bi Jokkel Aliou Fatfat dina fa jàkkaarloo ak Caatu Ngéwél jeex jàmm jàkkaarloo fa ak Baye Mandiaye numéro 2 Bib Diop 95 fa ak Naaru Sokas Babacar Balde jàkkaarloo fa ak Ablaye Diop 1 giga jàkkaarloo fa ak Omar la Gaston production def mbokk yi mu ne entrée francs annexe loge bi mu ne bi mu ne kon nag gars yi rendez-vous baa ngi noonu dimanche 28 juillet à l'arène nationale ñu ànd ci ak Gaston production am na lu lay teg ne lii ngay mm. Mm. kii dañ ko war a joué loo mbër bi fu mu toll est-ce que mar naa naan est-ce que yooyu mm. yëpp dañ ko gis ci face mais Tapha Tine amul loolu mais mënoo nekk combat nag bëgg a tey jii bu amoon ñu nekk ci ginnaawam ñu ngi fàttaliku rek Xaadim Njaay ak Ama Sène dem ba jóg mhm. bët bi tuutee ci dugg rek Tyson annulé combat bi. si gaañu na gaañu boo xam ne dama nekk ak Daawda ak beneen booy ma ko tafaatit na annulé na na jël defet ñu ne ma non pour lan ma ne ko non tafaatit bu ñëwaatee du baax parce que course yi ci ginnaawam gisuma fa kenn. gaañu bi mu gaañ ci kanam. bi mu gaañ ci kanam rek avant damm damm bi. ah mais loolu nag loolu nag yi ñooy wax man na bëre ji wala mënul bëre ji. non non non yow yaay toll foo xam ne yaa jël say responsabilité. ni mënuma bëre. ni mënuma bëre. waaw ah, ah, loolu su boobaa ana njàmbaar ana njàmbaar. non non gaañu ci kanam ni mënuma bëre moom na njàmbaar boo xam ne. loolu d'accord ma jël ci kanam rek mënatuma bëre moom kay naa naan sama baaraam dama am na foo xam ne boo fa tolloo. Ah. sa nit moo la war a génne ci combat bi pas yow. Mhm. Tapha Tine bu amoon ne ci ginnaawam ñu feer yoo xam ne feebaluñu Mhm. ñoom ñoo koy génne ci combat bi fi mu gaañoo loxo baa ngi damm def nii Tapha ngi lewantoo bëgg fudd loxo bi mhm. ñëpp gis nañ ko gars yi ne dañ ko jàpp may leen di dañ ko jàpp loxo bi moo gaañu loxo bi la bëgg a mais boobu xam nga Sénégal gépp wax nañ rek Tapha dafa ragal Balla mën naa la laaj tuuti Assane loolu la gars yi bu wax su arrièreoon rek ne signalé ñu ne ñu ne ko da ngaa ragal waaw Assane xam nga kenn mën ta wax bawal génne koo xam ne dafa dëkk ndaax ak cekkeen ak yaruwaay waaw ngay bawal cent pour cent nu xam ko lii may lay laaj rek laa bëgg nga tontu ma ci ana ñu dëkk réew maawo ana ñu dëkk témboo ana ñu dëkk njaan koy laaj lu mu ana ñu dëkk ay pays si njaan ana ña nga xam ne dëkk boox ak reefon ña nga fa ana ñu dëkk njanjaar ña nga fa gisuma leen ci cumukaay bi de waaw loolu dëgg la. xam nga maanaam loolu lépp moom moo waroon a woote. dama ne. yaatal. mais am kenn ku nekk euh, kenn ku nekk li li nga li li nga soxla. la ma xam nga mbër bi mbër bi mënut a régler lépp. dafa am ñoo xam ne père. père ah, dafa am ñoo xam ne. ñoo war a nekk ay course su <laughs> am na boo yoo xam ne ñu ngi Sandaga Patterson. Mm. ñooñ bu ñu laajoon Tapha. Mm. bakkan jox ko ko. mais am na loo xam ne mënuñu ko. comme comprendre nga mais Tapha moo war a am course si xam ne dañoo war a yaatal kenn ku nekk loo man jël la andi ko. bu ñu santoon loolu ba da jonn dina ko def. xoolal nit ku ne lu man ci lamb bi nga andi ko ne ko lii lañ soxla. Daouda Sarr. waaw mais ba ba ba sans frontière kon lan mooy seen liggéey. Mm. bu fekkee dañuy toog rek xaar mbër bi pour mu woote pour ñu ñëpp soutenir ko. maanaam daal liñ koy xamal mooy Tapha Tine wane na ngor mm-hmm. wane na jàmba mm-hmm. ndax combat bii bu arrière an signalé mm-hmm. làmb ji yàq waaye dafa af lool tumukaay laa af ba daanu am na mérite te Gaye ma daan nag du cuune de pour gisuma gàllaaj gis naa ne gaañu te gaañu boobu moo raw gàllaaj boo rëq-rëq rek mu gën a metti xontumaa nag sa baaroom damm ba kole mënu ta deñ lamin mënu ta deñ lamin lamin moom may <laughs> seetaan dafaa géey ak yëkk ni damaa kontaan uh-huh. saa bu ko bëggee génne ci làmb ji mu génne ci boppam mm. dañoo bëgg ñu ñu new ke sat billaay ku bul fexeel ba bul daanu mukk <laughs> lamin lan mooy sa gis-gis ci combat bi dégg nga ñi nga xamante ne paa yi wax nañ ko fii mm. da nga bokk ak ñoom analyse voilà non man dama benn instant sax dama laa naroon jox ngànt ne la du ma mën a ñëwati. parce que bëgguma woon ñëw fii di def loo xam ne day mel ni saaru insulte. parce que Tafa Gueye doyen mi toog. Mhm. kati moom seetaan moom parce que xam naa bii war a judd. mais ba léegi maa koy seetaan. Mhm. xam nga tax moo koy seetaan 92 ba léegi. waaw parce que Mor Fadam sama jarbaat papa la woon. dafa bëri moom ñaari yoon wala ñetti yoon. Mhm. waaw ñaari yoon. moom bu seen premier combat suñu kër yëpp dañ koo bàyyi woon xel boobu ñuy nekk ay xale. ba pare man xam nga jàngaloo may sport dañuy dox di daje ci milieu sport nii rek. Mm-hmm. mais damaa ëlbatiku di jàng ci yow. Mm-hmm. mais bu ñëwee fii tey ñii ñëpp jël ku ne jël position man su ma toogee fii am na moo ko boxee day mel ni dama insulté. moom pas position sax pas position mais. ñu xalaat. mais yow aussi ñu soxla sa xalaat. waaw mais man su ma. sans gêne dañu bëgg boo xamante ne. sa xalaat sans gêne. waaw saa dama ne mm. man damay toog ba mu yàgg damay damay damay damay naan ma est-ce que sport la. voilà. Mm. man lamb lamb lamb de sport quoi. Ah, lu tax du sport. voilà la question. tey jii. Hmm. man dama xam discipline bu mu mënti doon. Hmm. dans le monde muy football di kung boxing di boxe taekwondo karaté lu mu mënti doon discipline bu dee sport de combat ñaari nit da koy def. Hmm. bu dee sport collectif ay nit ak ay nit ñoo koy def. ñii dañuy def ñii di dindi di def ñii di dindi di def sport de combat man sunu ne peux pas concevoir deux athlètes yu pare combat neuf mois kenn ku ci nekk mat nga Balla Gaye moom minimum mat na cent vingt cinq kilos wala cent cent quinze. Hmm. par rapport ak confiance bi mu yor ci combat bi. Tapha bu ma ko doon jox waa ëpp du ma ko jox minimum laa wax. Hmm. Hmm. Tapha bu ma ko doon jox minimum mën naa ko jox cent trente cinq kilos. de muscle nag laa wax. kon foofu maa ngi fay alerte ñuy wax préparation baaxul. de muscle. waxuma cent trente cinq kilos de ay de muscle. waaw léegi ñaari athlètes yooyu jàkkaar lool. ci combat bu ñu paree neuf mois dama ko yaat gis nag dama ko mais ci combat bi tey jii laa am tey laa ko bëgg a wax sa fait des années may topp loolu damay topp di topp ay mbër yu pare combat du pare combat du pare combat. ñëw ci làmb ji comme que du lii ñaari ñaar du ñaari at la di jàkkaarloo quoi léegi combat bi père Tapha dafa ne neex na trop. père Paara tamit ne macha allah ñëpp ñu neex na. parce que ah. li ñu xaar joxe nañ ko. waaw jox nañ événement bi gëddëm. dëgg la mais man dama ne combat bi neexul. ah neexul. parce que benn mbër moo doon bëre. ah ci naka. benn mbër moo doon dóor. moo def lépp. waaw daan waaw. j'étais dans ce jour waaw. man dafa am lu ma xam ci sport de combat. Ah. sport de combat dama xam maa père nga yóbbu bu ñu jàkkaarloo mën a yow nii. Hmm. est-ce que xam nga ni fi mu toll nii mën nga maa jur mais li Balla Gaye def Tapha Tine dimanche passé yow mënu ma la ko def fi mu toll nii. man mënoo ma ko def. man damay entraîné te fii ak suba di nga xam ne. Ah. man mënoo ma ko def. bàyyi ma ñëw ndax dàq. waaw dàq ma xeex. bàyyi ma ñëw ah non non non ah, je suis un bon bagarreur Moustapha. ah parce que duma te a naa dans deux jours nga xool xoolal Pro. góor a arrêté de remis même nga samu tapa kon yow kon dèjà yow dèjà sànq ba léegi <laughs> sànq ba léegi maa ngi wax nga ma ah, lu tax lu tax ba ci ba ci fin bi nga dëggal li ma wax dëgg dëggal nga maanaam dama la war loolu amul li nga xool ci man ba wax ma loolu. bàyyi si waaw ah, dafa am lu mu xool ci man Moustapha ah, ba tax mu wax. maa la jël maa la su ma xamoon du wax loolu. mën naa jël keneen sax mën naa jël ndax nee wante xamul kii. Ah. tey billahi li kii daj ci làmb ko ci làmb. kii musul daan koo xam ne kii ko mën. gis nga kàtt nu mu taw. mbokki Sénégal mbokki amateur yi déglu la grande finale du CLAF 2024 bi Gaston production organisé wu moo war a dox nag ci diggante Doudou Sané ak Caatu Yarax ñaar ñu am mérite ñaar ñu jàmbaare waaye Gaston production bi yam foofu mbokk yi la phénomène de Pikine Prince moom la jël daal di koy boole ak doomu Fatick bi Jokkel Aliou Fatfat dina fa jàkkaarloo ak Caatu Ngéwél jeex jàmm jàkkaarloo fa ak Baye Mandiaye numéro 2 Bib Diop 95 jàkkaarloo fa ak Naaru Sokas Babacar Balde jàkkaarloo fa ak Ablaye Diop 1 giga jàkkaarloo fa ak Omar loolu la Gaston production def mbokk yi